autonome des travailleurs des eaux du Sénégal dafa mere lool direction générale Sen'Eau SATES di dénoncer conditions de travail liggéeykat yi. at bu ne ren dafa am loo xam ne dafa am lu doon lu fi musul am maanaam ñaxtu yu liggéeykat yi doon ñaxtu yépp ñu tënk ko ci seen plateforme revendicative amul benn poñ boo xam ne direction général satisfaire na ko ñu toftal ko tamit. ci IPM bi nga xam ne mu ngi sooxee liggéeykat yi mënatuñ faju fu ñu dem ñu dàq leen ñu bëgg ñoo indil formule d'assurance boo xam ne liggéeykat yi ànduñu ci. ci loole SATES di invité nguur gi mu intervenir ngir rek yëf yi mu mën a jubbantiwaat. ñuy woo nag état du Sénégal ngir mu saytu loolu bu baax a baax mu ñëw xool seen o li fi nekk xam ne jaaduwul mu joyanti ko. ndax seen o alalu Sénégal la Sénégal moo ko moom ndox bi ndoxu Sénégal la waruñu seetaan mauvaise gestion bii di fi continuer. syndicat bi nag di exiger ñu bàyyi li nga xamante ne mooy persécution bi ñuy teg.